asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk jullit yëpp bokki taalibe murit yëpp bokki réew mi yëpp ci kàddu ak ndigalal ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi tooge jataayub Serigne Touba tey ci kaw suuf yàlla na suñ borom guddalu fanam dolli kàttanam ak wéram ba yitte ji nga xam ne am na ko ci liggéey Serigne Touba ndax yëngutoom gépp ak dalam gépp bëggu ci dara lu may liggéey Serigne Touba muy kilifa gu mat kilifa kilifa gu xam ne foo ko séen rek sa xel dellu ci sa borom kilifa gu am yërmaane ci njabootam kon ñu ngi koy ñaaral bu baax la sëñ Abdoul Ahad Mbacké daa def boo ko nee yàlla nga gudd fan mu ne cell boo ko ne yàlla nga am ngërëmu Sëriñ Tuubaa mu ne la amin gis gis naa ko ci moom kon ñu ngi koy ñaanal bu baax ci turam nag muy nuyu bokki lislaam ji yëpp di jokk bokk lislaam gi nga xam ne moom la seq ñoom ca nam gën a rafete ne ko suñu borom santaane ci alxuraan innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum tañ xam ne bu ko mënoon fu ne tànkam tànkama fay dem moo tax fu tànkam mënta dem itam ndawam dem fa yéeneem dem fa di nuyu itam ñu nu seqal réew mi yëpp ndax àq dëkk doo waaye di jagleel am nuyoo nag njabootu Sëriñ Tuubaa gépp nga xam ne ñoo moom ñoo seq liggéey bi muy seere ak cantam ci ñoom ci topp gi ñu topp ci ginnaawam ci jàppale ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa bayut kenn nag mboolem ku mu bokkal Serigne Touba mboolem koo xam ne mbokk nga ci ci biir yoon wi di taalibu Serigne Touba ndax boo taalibu Serigne Touba ñëpp tàbbi nañ ci biir waaye di gërëm itam ñi nga xam ne seen maam yi ñoo laxasaay woon ànd ak Serigne Touba te xamaguñ woon fu leen Serigne bi jëmee waaye seenu dogu ak seen pëstéef ak seen yitte ju tax ñu jaay seen lépp jaay seenu juddu jaay seen lépp ngir Serigne Touba. kon sëriñ bi nee mboole mu seex sépp mu ngi leen sant ci seen posté ak seen taxawaay ndax kenn ku ci ne na samaam àndewoon ak sëriñ Tuubaa ànd nga ko moom te mooy topp ci ginnaaw di ko dillu te doo ko jiitu te lépp loo jàpp ne baax la ko ko jox ko kon mi ngi sant ñëpp di sant bokk taalibe murid yi topp ci seen ginnaaw yëpp bayiwut kenn ndax taalibe yi moom sëriñ Tuubaa da ko battale woon ci fonk guñ leen war a fonk ci làmmiñu Serigne Saliou laa dégg mu ne waxoon na Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Fadil ne leen seeni jaa seenu jaamu yàlla ginnaaw li yàlla farataal ci yéen mooy lijjanti taalibe yi toppatoo leen amug yi amug yi ci ñoom leneen lu mu doon rek maa koy defal sama bopp taalibe yëpp lu ci waay jébbalu ci nit itam Sëñ Tuubaa lañ yaakaar ëllëg. kon nag ndénkaane Sëñ Tuubaa ci ñun mooy jaxasoo taalibe yi di muñ seeni bang bang na ko Cheikh Mamadou Fadi daa waxee ci ndax Sëñ Saliou daa wax ne nit boo ko mënta boole ak ay ay ay ay ay sikkam ak ayibam yilif ko motoo ko kilifa Cheikh mun taxaa kon bëtu yërmaande boobu lay xool ci ñëpp fa innahu way na asawka yaa ahad li xaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdaanahum la taqdiru ala balaika li doom fi yasaru ni Serigne Touba taxawe woon nekk fa avocat diggante julli di ak seen boroom moom itam noonu la def ci diggante taalibe yi ak Serigne Touba xam na ne taalibe yëpp seen bëgg gënu Serigne Touba moo tax mu am yërmaande jooju ñoom di leen xool bëtu yërmaande kon mi ngi nuyu ñëpp di dugg nag ci bis bu tedd bii nga xam ne moo ñu fi dajale di màggalu Touba. di bis bi nga xam ne ci la fi sëriñ bi bàyyeekoo woon di liggéeyal boroom liggéeyam bu tedd bi nga xam ne lépp lu fi jag walla lépp lu fi baax sawo si mooy liggéey bi ndax sëriñ bi kat waxoon na ne laata may dem ci géej gi liimaan ak lislaam ak lihsaan ñëw ma ci nabiyul mursal ñëw ma ci malakul muxarab waaye la ko dese woon nag dëgg-dëgg mooy àgg ci yàlla na mu ko waxee wax ji day guddoo boo déggee mu ne lillahi qad wasaltu inda galwa ci tukki bi nag dogo gu ci am ak yitte ji jaayanteeg suñu borom bëgg a bokk ci ahlu badri moo indi liggéey bi ak bëgg ram aw xeetam mu nekk lu diis nag loo xam ne daa waxoon ne astaxlisu li nafsi soxla mooy ci ndimbalu kenn mooy dëkk yan mooy dékk nattu yi dékku coono yi te lu ne daj na ko fu ne jaaral nañ ko fa te lépp mu di ko yëg waaye la mu waxoon as Cheikh Ibrahima Faty jëwriñam jëwriñam ja nga xam ne moom la bartale woon njaboot gi bi muy dem ne ko bi mu delsee ba maam Thierno di ko gàttandu ba sëñ bi nuyoo moom ba ko ne tubaab yi de um sax mosuñ koo dégg ci kon kon sëriñ bi jom ji ak fit wi ak yitte ju kaw kenn xamul fu mu xam ngeen ne tumaranke gi ba mu déparé ba jugee Mbàkke Bari fu ne jaar na fa fu fu étape bu ne jàppoon nañ ne bu fa àggee sëñ bi du jàll ba àgg ndar wa iz yamkuru bika llaziina kafaru li yuthbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llaahu wallaahu xayru maakiriin ñenn ñi wax ne nañ ko def résidence surveillée ñenn ñi wax ne nañ faat bakkanam ñenn ñi wax ne nañ ko génne nettliwoon naa ko fi daaw ka ko defoon ak fa mujj moo tax Serigne Touba daraam lépp nañ ko bàyyi moom la sëñ bi daal di waxoon du ko ñuy xoolal du ko ñuy xeexal ku ñu topp la ku ku ku ku ku ñuy liggéeyal la Serigne Touba mënal na boppam lépp moo tax bi mu fi jógee di liggéey àndut ak kenn fu ne jaaral nañ ko fi ci biir liggéey bi ndakaaru jàkk bañ ko génnee réew mi yóbbu ko Gabon sànni ko ci gott gott bu metti mooy diggante Mayumba ak la ak Lambaréné dem ba ni ko sëñ Moussa ko waxee rek dem ba kenn diggatu tur sëñ Tuubaa ba ñëpp jàpp ne sëñ bi yoon dem na waaye ñi mu fi bàyyi woon mate ko mooy Cheikh Ibrahima Fati ak ñi defaroon yëngatuwuñ sax yóbbu liggéey ba nga xam ne bu su bu sëriñ bi nekkoon day mel ni mi fi kon ñoom ñëpp seen taxawaay defar gi leen sëriñ bi defaroon duy leen duy leen bañ fees dell. moo tax ñu àndoon muñ ànd ko dogu dégg ngeen ci iraaw na dim sax bi Ibrahima ba mu tàggoo sëriñ bi jooy metti la doon jooy waaye defaru gi ak xam ne wóor na leen sëñ bi dana dellusiwaat te xam ne ñoom lay liggéey li moo tax ñëpp toog di muñ ba mu fa àggee itam mu jaayante dogu dërëm yi ñu ko daa jox sëriñ bi di leen ko sànni yadi li muhnin karimin nafiin samadin laa lidarahimi tati min solaytini katabtu fi lbahri anni laa amudu yadi ila nasara abidi almaai wa tini nekk ca seen digg ba noppi defiyee leen nag du jël seenu dara seenu dërëm du jël seen alal du lekk seenu lekk tumuraanke gone mu daj ko fa fi ñuy wax làmbar na mooy barab bi gën a métti nga xam foofu kenn mënu fa dund surtout ca yooyu jamono mboolem yi fadde ak yi raye amoon na fa lu ñuy wax ay ngodd yoo xam ne ku ma sa matt tooke lay bàyyi ceeb joo dangay da faatu sëriñ bi nee na ñu yóbbu ma teg ma ci ab këréfër boo xam ne mosuma faa def lu ëmp bu julli ñu taxaw di ko reetaan ngir xamul li mu doon léeg muy taw ci kaw lépp mu di ko dëkk mu di mu di ko dëkk ne fa weeru koor woo xam ne wax na ne benn xaal la bënn bu waxtoo dog jotee mu mu mu mos ko bu bu bu waxtu xëdd jotee mos ko àgg na ci am ñax daana ko jëfandikoo dégg ngeen sëñ bay jaxat di ko wax ne ko daa mosum ñax ba ngay mosum ñax amoo dudul ñax foofale bamba samaaniya xijajin illaa xalin mu ne fa nag juróom-ñaari at juróom-ñetti at yu maa tuuti ba yàlla suñ borom def liggéey ba àgg waaye matul nag dafa manqué ay weer ci ñaar ñi nga xam ne ñoo ci dox kenn ki di maam Cheikh Anta Sëñ Gaawaan ndax sëñ bi fa sëñ Modou Lo demee moo ko ne neel Cheikh na ma jël si ba mu dikkee moog Cheikh ñoo fexe ba jege bu leen moom moom gaawaan yàlla def siñ biñ te fekk de seen tuya weer di liggéey yoon yoon yu murtali loolu moo tax mu an mislam sa sa si fabalan wàll lu baax ci kaw suuf suñ boroom dafa xar suuf su mu te dóor ko fa moom la Sëriñ Tuubaa doon jëlee moo tax daan daana fa ak ak kawaru njañ dafa doon baati nag suñ ko suñ fa daj bu rëy doomu aadama ko fekk leen daay def nag moo ñu may lii ñu am itam lépp Sëriñ Tuubaa ko liggéey la sëñ laa Lahad waxoon ne ba muy taxaw di ñaan ku newoon ci ginnaaw di wax amin sa amut biñ ko yóbbu Mauritanie fekk dañoo dañ doon wax ne dañ koy yóbbu Madagascar wala ñu yóbbu ko Mauritanie Cheikh Sidiya Baba yërëm sëriñ bi lool ñëw ci sëñ bi di waxtaan ak moom ne ko bu ma soyoon de nga bàyyi wax tubaab yi ma yóbbu ko Mauritanie ndax Madagascar dafa metti sëriñ bi ne ko. na sam xeer dal ci sama digg ñoom ndax sama takkusaan gaaw ñoom kat duñ ko fàtte doo déggate ñu jë yëkkati loolu jëme ko sama jëmm ji loolu nag mooy najawtu min fitanil aadaay is xasadoo nii benn bil ma daafiyaan turan wa shakaakin mboolem ñu dàq tiire leen dajale ca ca ca ca Gabon ngir ñu tiire sëriñ bi bañ ko tiiree waa ahlu bañ koy bëgg a tiir rek waa ahlu badri ñëw loolu gisee ko ci mbind bi jërul guddalaat dugal lañ ko ci biir am yeer gas ko ba mu xóot ñu tàbbal ko ci biir sëñ Abdoulaye dettin na ko soxna jaaraa jàpp ci am génne ko ne ko bu ñu gàllankoor sa liggéey kon Serigne Touba am da ko liggéey suñ borom faye ko ko ba addunay tukki nag saa su xëyee du yokk mu jaar fa jóge fa dem ba ci yéen ci yéen itam la tax ñu yóbbu ko fa Mauritanie dañoo mujjoon gis ne yàggam fa yàgg Mauritanie gépp dañoo maase defoo say ba nëgë ne ku gëmul Sëñ Tuubaa néew fa ñoom dañuy wax ne sax ñoo gën a gëm waa Sénégal Sëñ Tuubaa ndax am Sénégal am nañu ko fi nugalu Mauritanie nag ñu nekk ay tijaan nag ñu nekk ay ay xaadir ak ña nekk ci azasali ak yenn ñu nekku ci tariixa sax ñëpp a nangul Sëñ Tuubaa ñu gis na nag diggam ak al aalamul islam ngi bëgg ubbi ko ñu ne nañ ko fa jël indi ko Sénégal yóbbu ko ci barab bu roqee muy muy ci yéen Jolof bañ ko fa yóbboo nag sëriñ bi nag mu nekk fursa ci moom ngir mu mën a defar nit ñi nag fala tàmbalee nag defar nit ñi leen taxliya leen tasfiya duy leen bañ fees dell ba mujj tubaab bi wax ne rapport yooyu mujj def mooy buñ ko fi jëliwut dana mennum Sëriñ Tuubaa lañ doon xeexel waaye dana mujj ay junni Sëriñ Tuubaa am ñu jële ko fa nag ne nañ ko indi jaay dem raamoo masiri إلى جرب الذي لسسي لو عان لو عاينوا سر ما في صير ما رموا سرين توا وحنا وحنا ننجم أني جارم ما يبون خمون لذا نجم أني جارم ده بنقرف فصير موت لدى من نازع وأزن وأنه لي إبقاء وإكرام فوهنك يوم لالين دا تشالين دا لين يوم نيبو خمنا إلا جطب جرب دلسوات ويسرين توا nee na fa ko suñ borom wane li na nar a xew ginaar ba mu fàggu lépp kon yoon wi nañ xam ne suñ Tuubaa fàggu na ko ba dara mënu koo te àgg fa mu jëm dara mënu koo gàllankoor ndax koo xam ne jëlee nañ la fi jox ndigal maam Thierno ko na tas daaya tas kër yi seex sépp ñu tasaare leen génne la réew mi nekkoo fi ba noppi muy gën a dox kon kooku mbiram kuy nattale sax wala ngay xalaat ci mbirum Sëriñ Tuubaa war ngaa seeraat sa passif ndax yoon wi kat sëriñ bi doone du ci woon kenn dara waxoon na ko Cheikh Mamadou Moustapha ne ko noppi naa ci lépp ci njaarim la ko waxe maa ngi mel ne ràbb bi nga xam dafa defar ay séram ba mu jekk mu denc fu jamono tolloon rek mu génne aw solo loolu yoonu murit kon loolu mooy mbirum Sëriñ Tuubaa noppi na ci lépp fàggu na lépp li ñu ci war rek mooy jéema a góorgóorlu ci sàmmali ko bëgg-bëggam waaye li ci suñu yoon néew ji kon loolu mooy li ñuy bëgg a waajal ci njaareem nag ci atum 18 ci li sëriñ Abibu Mbàkke wax dégg naa ko ci la am ñoom ñu bari dégg nañ ko ci moom ci la sëriñ bi xëyee bis nag wax ne nattu yi suñ borom dalaa def saasu su 18 safar ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar natt bu ñu ko mas teg rek dañ ko daa fulaat ba mu tollaat lu ko ëpp ñu teg ko ci bis bi te da ko yëg ni ko nit ñi di yëge ba ci atu 1918 nag ci la ko mu di ko waajal ndax xam ne nattu yaa ngi bëgg a ñëw suñ borom xamal ko ne ko nattu yi jeex na ak paye ci des ba wane tàmbali di ko màggal ci biir kër gi ñaari at mu door tàmbalee génn ci bit at moom ko njëkk a wootee xam ngeen suñ mulaay li na ko suñ bàll faali at mi mu koy yëgal taalibe yi na ne ñëpp xam ne lii sama bis dana waxal bàll faali na ko wax fere yi loolu sori vingt wala vingt et un suñ màggal na ko ñaari at wala ñett ci biir kër yi mu door a génn ci bit bis bi mu xëyee di ko woote itam dafa fekk kenn ci bokk taalibe di di dox ci àllum jari bi seen leg gu rafet ndax nit ñi lu ñu mës a gis ci lu bax rek andi ko sëñ bi bi ko andi le sëñ bi sëñ bi ne len fek sëñ bi di waxtan mo talif ci qasida al arnab ci moy ak leg sëñ bi wax ne allahumma ya man ajabani wa radita anni wa nafa'tani wa barakta li moy arnab إجابة واردا ونفا مباركة لم يشبق إلى مثلها ولا يشبق إلى مثلها وصلبت إلي في يوم خطي هذا الخط القرآن ولسان العربي ومنافع الدنيا والآخرة فيما فصل وصل مبارك على سيدنا ولا محمد وعلى آله وصحبه ما جعل هذه القصيدة أحب إليك من كل موزن قبلها تلك تعليم moo daan leen xanaa lëggee di jaaxle na lool ñëpp ni teg mu ne ko xam nga lu tax mu wax leen ko daa sori bokkam daa nii laa mel ci wér tubaab bi kon bis bii nag Serigne Touba moo ko santaane de moo ko njëkk a defal boppam itam daa waxoon na soxna Aminta Amari ne ko bis bi de dana dem ba àgg ci xumbu xumbu koo xam ne. kudul man ñi ko woote ak yàlla suñu borom mais sàkk bindee fi doo xam liwum ña ña ña cay màggal suñu toll loolu ñëpp gis nañ ko kon loolu mooy bisu màggal gi sëriñ bi lim ci santaane lim ci santaane mooy bernde kon li ma ci waxoon bu yàggul rek la ci ji li ëpp ci li ñu war a def mooy bernde ci bis bi li tàmbalee ci ganaar ba ci gileem ndax suñ borom moom lu ne moo xam bu koy digle ak lam ca dexeñ lan yanaala llaahu luhuumuhaa wala dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum tabaski kenn defalu ci yàlla lu gën a màgg ci jaamu yàlla rendim xar kon nañ xam ne li jiitu ci liñ war a def mooy bernde yi Sëriñ Tuubaa digle dadaa wax ne ku mënta bernde it na nga fekk fu ñuy bernde nga dem xewlu ca ca cay jamonoom Euh, Cheikh Ibrahima ak Cheikh Issa bokkoon nañ ci ñi gën a ràññ ko ak suñu Aliou ci indi fa ay teraanga yu dañ ko daa joxe ba mu wees penc ba ci biir dëkk ba kon sëñ bi bis bi fonkoon na ko te euh, Cheikh Abdoul Khadir waxoon na ne Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko wax ne ko sa baay de nee na ma bisu màggal Touba de buñ demee ba ëllëg àjjana amuti bis waaye yàlla mi nga xam ne moo sàkkoon guddee bëccëg xam ne waxtu muy jot képp koo xam daa nga sonne ci sama bis bi bu mu ci àggaatee da nga yëg xéewal gu dollu ko ci yow goo xam ne màggat yàlla ko may sëriñ Saliou Mbacke dégg ngeen ñëpp wax ba taay mu wax ne sëriñ Touba nee na ñaar buñ dendee kii di ko fonk kii di ko ñàkk fonk waxtu ne ngeen di si ka ko fonk lu mu tiima ka ca des kon bisu bisu sëriñ Touba la lu ci waaye defal sa bopp nga ko defal lu jag ba noppi la it ndax suñu saaliw daan wax ne màggal de day ndur la jëfee organisé waaye lu yomb a organisé la ndax taalibe bu ne dana fexe ba këram jag kon màggal gi taalibe suñ tubaab yi xaaruñ ci kenn musuñ cee xaar kenn te duñ ci xaar kenn ma ñun ñii sax waaye taalibe ba gën a ñàkk gën a néew doole sax dana fexe ba ak màggalam jag am na ñoo xam ne buñ màggalee ci suba sax lañ ko tàmbali waajal ba déwén. moo tax xat-xatu jamono du ko yëg du yëg naqar jamono loolu Sëriñ Tuubaa ko faggu wali si waay yéen taxit deexu li ci li ci gën a jox firnde rek mooy bi fi mbas mi amee ñëpp jaaxle tiit waaye màggal googu bokk na ci màggal yi dàq ci màggal yi kon loolu moom du man du keneen du du du benn taalibe lu Sëriñ Tuubaa liggéeyee suñ borom ba mu fay ko ko ginnaaw mi tam ñu war see jàngat jàngat bu rëy ndax ren la téeméeri at ci. bi Sëriñ Tuubaa ñibbisee te loolu dafa am ndigal ñaari ndigal yoo xam ne da ko fee bàyyi ci ay waxtaanam benn bi mooy muy woote jumaay Tuubaa dafa waxoon wootee ba ñëpp daje dafa wax ne maa ngi leen di digal ndigal loo xam ne fu waaye jëm na ko fa yóbbaale mooy lépp lu ngeen bëggate wala lépp lu ngeen sombati rawat na lu mel ne néegub yàlla bii ni ngeen ci góor góorlu seen kem kattan te lu ngeen ci mënut ngeen dem laxasaay wuuti ko ci anam gu lew te fu ci seen te fu ci seen kattan yem ngeen toog xaar fa sayaj'alullaahu ba'da usrin yusran tëriki nag maa ngi leen maa ngi leen di wattandikuloo lépp ndimbal loo ne bu leen fajaree seen aajo it daañu leen xañ seen ngor xañ leen soñ seen jom tilimal seen diine daan yett yi de képp kum ne ci war ngaa fexe ba sàmm ko képp kum néewu ci yow te war ngaa fexe ba wuti ko nee la jiitu ca la koy maye nag mooy fexe ba mënal sa bopp la jiitu ca la koy xaye mooy ñàkk mënal sa bopp ndax ku la mënal sañal la te bokkee ko yal na lay war a yàlla na la yàlla na la war a sañal kon loolu Sëriñ Tuubaa ko santaane woon njabootam gi topp ko la ci mujj mooy xutbatu am sa sin mooy gaaw bi nga xam ne ci lañ mujj gis sëriñ mujj gis sëriñ bi muy gaaw ba sëriñ bi wootee ba ñëpp daje sëñ Maali Jaay moo woote woon bi sëñ bi sëlmee takkusaan lam njëkkalaat dafa wax ne tey ñaata fan la ci weer wi ñu ne ko tey la fukki fan ak juróom benn mu ne kon na wax ak njaboot gi ñu dal te jekki fii ba gàmmu gi kon suñ bi tàggoo na nit ñi wax leen ne itam yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ne ñett ci taxawucc yée yii cee taxawucc noppi jekki jaamu yàlla nangoo liggéey doy loolu nga am na ngeen gàttal jéego yi ne fii ba gàmmu gi digle ci digle yu bari xam naa jotaay bi day gudd ba nga xamee ne waxtaan naa nit ñi ba laata timis mu duggaat ci biir sëñ bi waxtu yépp moo ko daa jiite ci jàkk ji ba mu sëlmalee itam ñu ubbiwaat fenêtre bi moo tàmbalee di waxaat ak nit ñi wax sëñ Modou Lamine Diop Dagana ne ko jàngal suuratul Baqara sëñ Modou Lamine sëñ Modou Lamine Diop Dagana tàmbalee alif laam miim zaalikal kitaab laa foo fiihi hudan lil muttaqiin الذين يؤمنون بالخير ويقيمون الصلاة ويما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون من كل الله ملو ملو أو جلد دامين أندب لو خنا دنج كو ديف بام جيك تا بونوت لو سي ديف رك مو ديسيا منكو ويل من ان الذين كفروا شواء عليهم انذرتهم ام لم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبزارهم خشأة ولهم عذاب عظيم منكم موي ملو يفر دام لنا ندب واي دف بن لو جي دف دي سوتو كي شوف منكو منكو جالال منكو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله ولسنا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فسادهم الله مرضا ولهم أضر العلي بما كانوا يكسبون منك موي نافق موم موتخ ني بيند موتخ بيس بي تاخو منك ولسي يونا ما انزل اليك منكو موي القران وما انزل من قبلك موي تيري يكو جيك منكو نين فخ نك با واتانديكو تعصب موي فرفرلو li dal li dal diggante yahuud yi ak nasaraan yi na ngeen feex ba yéen bu leen ci bokk waxaalitil yahud laysati nasara ala sayin waxaaliti nasara laysatil yahudu ala mooy mooy yahuud yi dañ ne nasaraan yi nekkuñ ci dara nasaraan yi ne yahuud yi nekkuñ ci dara mun leen yéen na ngeen feex ba loolu bu leen dal loola nag moo war a si murid yi képp ku baax la nongul la nongul nañ Cheikh Abdul Xaadir Jeylaane nongul si Ahmad Tidiane mën naa fa wëlbati ko nongul Sëñ Tuubaa kon loolu Sëñ Tuubaa mooy njàngal yoon wi ñu ko war a defee yoon woowee nag boobee nag la ca lay mujj ci sëriñ bi ba yàlla def gisatuñ ko ci saahira ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ci mat gi ak yitte ju kawe ja ak dogg gi ak mate gi li ko sëriñ bi bàyyee mu fexe ba mu ñëw Tuubaa kon ñoom ñi ko fi wutu ren la ci téeméeri at ci démb bu ñu ko indee Tuubaa léegi liñ fi liñ fi def ginnaaw bi it li taxaw lépp bu weesoo jumaa njaarim ginnaaw bu Sëñ Tuubaa ñibbisee lañ ko taxawal kon Sëñ Tuubaa lam wanoon waxoon ne suñ boom teg na ci sama loxo at def wal jëlbu fii ba ginnaaw ginnaaw bu ma bindee mbir fii ba ñeent téeméeri at wane na kon yoonu kenn kenn duñu ci dara lépp Sëñ Tuubaa ko defal boppam loolu na ku ko xam da nga noppalu doo doo jàq doo jaaxle da nga xam ne lu waxtu wa agsiwut rek waaye lu waxtu ak agsi dana yomb ndax ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ginnaaw bu mu indee suñ indee suñ bi Touba boo Touba ci fukki buntu kër matag ko ndax sëñ bi bëgg dalaa wax ne damaa bëgg ba bala faa mbooloo maa bari ma jiitu fa bari ba duñ a yàq dëkk bi boo Touba matagul fukki fukki kër tey wax nañ ne Touba mooy dëkki bi ëpp ay nit ci Sénégal mooy commune bi gën a rey ci Sénégal di département bi gën a rëy ci Sénégal kon Sëñ Touba ak ñaanam nangu na Cheikh Mouhamadou Moustapha ñëw ànd ak taxawaay bu mat sëkk ci lan njëkk def mooy raay bi xam ngeen gàllankoor yi ca yi ca doon xew ndax tubaab bi dañoo waxoon ne nañ ko ko may taxañ ko ko nañ ko may autorisation bi ndax. bëgguñ ni ni suñ diggee sëñ bi dëgër woon continuer dëgër ndax ñi ngi tàmbalee laa waaye nag nañ ko ci tegal condition yoo xam ne du ko attan waaye moom itam mu wóor ko ne la Cheikh Ibrahima Fati waxoon rek néew xaw néew ma xaw ma sàng de waaye xamu leen Sëñ Tuubaa yéen ndax Sëñ Tuubaa du santaani mukk lu du am te du ma sant mukk lu ma def mu ànd caaku dogo junni junni nit ak juróomi téeméer la jël xam ngeen nam demee la ci ñëpp def Cheikh joxewoon na lu ëpp juróomi téeméer nit ak mboolem kilifa yoon yëpp ñu gas raay bi diir bañ leen joxoon ak conditions yi leen joxoon yëpp ñu matal ko liggéey ko ci lu gën a néew fuuf diir bañ ba contrat bi amoon te contrat bi bokkoon na ca mooy bu ñu àggee ca dal ba te àggut da nga di perte lépp mu góorgóorlu positif ak dogu jamono boo jamono boobu yoonu boobu yoonu yombugut ndax doole yoon yëpp mbay la woon mu mu mu indi tool yi àllarba yi gor ay tool yaat daar naxiim ak fu ne ca la woon ak njaboorug Sëriñ Tuubaa gi ànd kook ñoom ba tàmbali jumaa ji ba fondation ko ba mu yëkkati ko mu door fee bàyyi ko ci jamono ji naqari jaar bi déclaré quatorze dix-huit xam ngeen ya ci xew diggam ak talire day lu gudd waaye doggagum ci amoon ak ndam la ko ci Sëriñ Tuubaa defal ndax daa wax ne bu ma dëree sama ta sama benn tànk rek te kama daa far far ma li ma bëgg dinaa ko am rawat na ma tegee sama ñaar tànk ku ko bëgg daaneel te kama daa far far ma ba ba loolu amee ca tribunal ba ca kaw la mu àndoon nag maam Cheikh Anta ak sëñ Modou Moussa Fall ak sëñ Massamba ba mu duggee. booba tribunal xam ngeen kenn du fa dugalaat dugaale ba xanaa ba mu duggee di su summi kaale gi suñ Modou Moustapha daa yuuxu waaye ba mu agsee tubaab bi ne ko leen rek laa bëgg a xam da nga wala doo fay suñ Modou Moustapha ne ko doo fay ndax tooñu ma bu fekkee nguuru France dama bëgg a daan nag na wax waxante ñoom kàddu yu diis xam ngeen nam demee ba mu fa am ko ne ko tubaab bi ne ko. daanaka du ko du ko du ko xupp xamal ko na ko boo deful li ma bëgg danaa dal sa kaw ba mu génnee nit ne ko ah, tubaab bi de ni mu waxee yow xaw ma dégg nga ko baaxam déet ndax xam nga fi ñu jaar ak sëñ bi du ëmp la ci la ko suñ du saa tontoo lii ñu teg ci ay fan de guerre dekk euh, euh, euh, daal di ñu déclaré guerre mondiale bi. tëlëri ñu faat ko fatal ko mu dee yëf yi dossier bu jeex kon mooy mbirum Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa li koy xeexal dafa takkook moom Cheikh Mahoudou Fadi Mbacké ñëw fa Cheikh Mahoudou Moustapha tàmbali woon mooyee fa jëm ci kaw def yitteem jëpp mooy jumaa yi boobu li ma la wax yoon yoon yu neexagut la mu def mooy gor ay tool ngir man àggale jumaa ji ànd kook Cheikh Seck taalibe Sëriñ Tuubaa yi boo ko ca la bokk sonn ci lool booba àgg na ci fii ñu toll nawet bu agsee liggéey jumaa ji day taxaw ndax nit ñi amatuñ amatuñ luñ ci joxe noonu lay liggéey jumaa ji waaye seen jom ak seen positif néegu tabax sax nungu ko am néegu ñax ci dëkk ba jumaa ji àgg loo wax ma ne balaa kenn tabax na liggéey suñu tubaab bi àgg ubbi dëkk bi ci la yoon wi màggee nag tasaaroo ci bitti ba àgg Côte d'Ivoire ubbi yoon wi woote màggal gi nga xam ne Sëriñ Tuubaa da ko woote woon ci njaareem ne bu agsee na ko ci ñëpp sant la yàlla ginnaaw mi tam Cheikh Maodo Moussa wéyale ko na ko suñ bi defoon bi Cheikh Maodo Fadi Mbacke ñëwee ci la ko woote fii ci Touba mu tolloog nawaytu shukrahu la daa daari waa indi Touba bi gis mi nu xilaam nawaytu shukrahu bi fardin wa sunan indahuma wa hinda daaritil minan kon ñoom ci lool lañ ci la nekk ba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw Cheikh Modou Fadil xam ngeen ne moo fi indi tëli yeeg courant beeg forage yépp ci xilaafam la ñëwee ci la dëkk bi door a doon ab dëkk da ko jëkk yolaas bu tuuti la woon ba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëwee nag nosaat yoon wi indi daayira sëriñ Tuubaa indi kër sëriñ Tuubaa boole ci raxas dëkk bi ba dëkk bi mel ni mu mel mooy lii Cheikh Mouhamadou Mountakha dénk jabaru Cheikh Ibra gi tey ndax sëriñ Tuubaa dafa taalif xasida ak Matlaboul Fawzayni ba ko ba ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di tere itam lu xóot la loo xam ne neexatu wax ci rajo waaye lu mu déggoog sëriñ Tuubaa la noonu du ma tëddaat ci village te li Sëriñ Tuubaa bëgg amut sama bakkan laa ci teg mooy lii sëriñ bi di sàmbula jabaru Cheikh Ibrahima tey muy suñu am di ñu ngi ko ci ñaanal bu baax mu yàgg koo taxawee sëriñ bi nga ko ci sant ndax mën loo foofu sëy ni Sëriñ Tuubaa da koo taalif wax ni wax ni dëkk ni bëgg dëkk bi mel ni kon loolu rek dañ jug ñoom di ko sàmm dolluwu ca dara teere Sëriñ Abdou Lahad waxun yooye képp la Cheikh Mamadou Mountakha di terewaat lañ ca yeesal rek mooy wàllu politik ak wàllu football bi ndax loolu itam boobu melu gundi ci jamono moo rax sëriñ bi wax ne na mu ko teree woon démb mi ngi koy yeesalaat ndax xam ngeen yàqut dara firnde ji mooy bi àggee ci élection yi nit ñëpp kenn ku ci ne jug nga wata ji seet kala neex nga watee ko ca na nga ko bëggee te yàqut dara waaye nag politique bi li mu doon yàq ci dëkk bi nag mbiru àdduna jëru ko ndax day jaxase xol yi te politique jarul loolu leen boole li ñu boole mooy Sëñ Tuubaa li jaar di jàll li ñu boole mooy Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa ji ñu boole nag bu kenn ku ne dee xool moroom ca ca sa jëmm dana danañ xam ne ñaari politiciens yu juyoo jër jëru di mere kenn wala ku gàttum xel koy def bu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëwee dajale yoon wi dajale seex si dajale kër Sëñ Tuubaa yi nosaadu yoon wi ba la mu ne yoon wi de danaa ko ba teg ko ci yoon wax néew mo du fa jóge di waaye du gaaw kon ñoom kenn ku ci ne lay sa ndax bu ñu liggéey ci di ko wax jataay bi du ko maye biñ fi bàyyi ko Cheikh Abdoul Khadim Mbacké ñëw wuutu ko ca liggéey ba ñoom ñaari seen xilaafa dafa ànd si si si Xaadim bi ko yëgee ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bàyyi ko na fi dafa wax ne maag sëñ bi de gopp ak kon ñoom ñaar seen liggéey dafa ànd sëñ bi daal daan wax ne. ba ñu Sëriñ Tuubaa di boole daa dàq seytaane boobu doo ñëw boole mu bàyyi ko fi Serigne Saliou Mbacké ñëw bi mu dikkee itam fañ fam fekkoon liggéey bi mu yokk ko gis ngeen lim def ci jumaa ji kër Sëriñ Tuubaa yu bari ci dëkk bi yokkaat dëkk bi itam ba dëkk bi bu benn mu yokk ko ba mat ñett lotissement yëpp te nungur ko ko jaay daa ko topp di ko yokk di ko saytu ak titre foncier bi nga xam ne yàlla defe nag ci biir ak xilaafam la ko suñu borom dogale ak liggéey yu bari mooy lu mel ne te xel koom bi mu fi bàyyi ko mën na fukki daara juróom yu bokk te yeneen daara yi ci des bàyyi fi fukki milliards ak juróom def ko addee Sëriñ Tuubaa bi mu fi bàyyi ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw woye liggéey bi moom itam bokk na ci li ci jëkk ndax Sëriñ Saaliwu assainissement bi njëkk a def ci dëkk bi tolloon ci cent millions moo ko def ay 93 94 moo tàmbale woon ci station Darou Khoudoss tàmbalee fii ci wetu ginnaaw kër Sëriñ Tuubaa gi dem ba kër ñag mooy dafa njëkk am Sëriñ Saliou ko defoon ba yàlla def Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw bokk na ci liggéey bi mu njëkk a def yàlla def na man mi maa ko doon taxaw boobu société bu ñuy wax EFAS ñoo ko defar. mooy assainissement li wër jumaa ji xam ngeen ne bundu kër Sëriñ Tuubaa bi ma santaw ñëpp xam nañ ni mu ak buntu kër doom si Tuubaa yëpp ak buntu armée loolu bokk na ci liggéey yi fi njëkk def boole ci it yi nga xam ne jëm na ci quartier ak kër Sëriñ gi nga xam ne naaloon na ko mooy gémm joxoon na Sëriñ Seex Jëmbu ci héliport fala mujj ànd ak moom sax ginnaaw ndajam man doon def njaarim bi ñu tegee xeer laata ñu tàmbali liggéey bi la fi bàyyi ko kon moom itam la ko waroon ci liggéey lépp def na ko masaalu ki jinaan itam yàlla def na suuf si bi ñu koy joxe ci xilaafam la bañ bañ taxeeru yàlla def mu bàyyi ko fi ginnaaw bi ak Cheikh Sidi Moxtar yow bi mu dikkee itam mu li ko gën a ci liggéey bi la ci jiitu mooy masaaluhu jinaan mu nekkoon somb wu rëy wu yàgg waaye yàlla def mu def ci jiite def ci jëf jom 2012 lañ ko tàmbali bi mu fi jógee daanaka la ci des matutu sax ay ñetti milliards yi ñeent kon moom lam ci des sax ëpp na daanaka fàtte na lim waaye bari na daana fekk na soorool yeeg lépp ci décoration sa àgg liggéey ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ci jumaa ji ñaari soorool defaraat biir jumaa ji lu bari ci karo yi ñu sopp ko ak yeneen liggéey yu bari bokk na ci it kër Sëriñ Tuubaa gii ci Daaru Manaan nga xam ne sëñ Saliou moo ko naaloon dénkoon ko waa dem ma dow foofu ñu tàmbali woon fa bâtiment mu àggale fa def fa ñetti bâtiment yeneen bâtiment yooyu itam man mii la joxoon ndigal benn bay waa kër sëñ mënu ba ñoo ko doon defar sëñ Ibra Xujje yàlla na ko yàlla guddal aw fanam mu defar ko na ko sëriñ bëgg woon ba jël sa di waa kër sëñ Massamba ñoo ko defar ci njiital sëñ Moussa ak sëñ Mamoor ak sëñ Cheikh mu sëñ Mahmouda mi doon seen jëwriñ ñoo itam ñu liggéey ko na ko sëriñ bi bëggee woon ba ca des mu jox ko sëñ siid naar jenn moo itam mu defar ko mooy mbaar mi nga xam ne moo fa nekk ba liggéey bi àgg loolu itam bokk na ci ab liggéeyam ba suñ borom def te loolu des tay yu bari yoo xam ne dama ko du teewlu ab liggéeyam mat mun tax a ñëw bi mu dikkee itam mu fekk fi ay naal yu mu fi fekk mooy Masaalikul Jinaan des na jumaay Tuubaa ji àggagut waaye mooy nañ sombu ñaar yëpp waaye université bi mooy sama yitte kon nañ boole ñett yëpp ma mu ko ci lool na xam ne diise waaye mu ne ma ñun de nañ xam ne suñ compte mooy Sëñ Tuubaa luñ somb ta luñ song te am ci doogu rek dana àgg xam ngeen ne fi mu toll nii liggéey ba sori loolu université bu ëpp 30 milliards te la ci la ci ëpp àgg na xam ngeen boole kook àggale Masaalikul Jinaan àggale jumaay Tuubaa ji loolu ay sumb yu rëy la kon ñu ngi ko ñaanal moo itam mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba motti naal yi nga xam ne am na ko ndax am na ay naal yu rëy ci dëkk bi yoo xam ne bu àggee rek ndax dégg ngeen ci làmb ñam wax ne bu dul woon ak université bi sama yitte jëpp mooy ndox mi ñëw ci biir dëkk bi kon mooy itteem xam naa kon incha allah. balaa diir bu gàtt yaakaar naa loolu daa nekk yitte yitte joo xam ne ndax sëriñ bi yërëm na lool taalibe yi yërëm na leen ndax xam na dëkk bi ñaari ndox yi ni mu leen sonale mooy ndoxum naan bi ak ndoxum assainissement bi mi ngi leen di masoo te koy ànd ak ñoom ndax xam ngeen ne kenn ku ci ne daanaka kenn mucc kenn muccatu ci man mii sax bu ma xëyee sama kër di ñëw fii damay teggee tegg ba sonn. doo am foo jaar waaye li muy metti metti metti am na ñoo tane ndax ci këram ne ci biir ndox mi moom kenn mënu ko wax lu mu dégg te na bari na ñoo ay kër yoo xam ne génn nañ bari na ñu génn seeni kër loola nag lu metti la loo xam ne la ko waral li ci ëpp kon mooy dañoo dëkk jiitu assainissement bi ndax Touba bi suñ Touba ñibbisee Touba boobu mi ngi toll ci fukki kër assainissement bi ñu fi njëkk a def boo Touba am na assainissement bi fi Sëñ Saliou njëkk def ci xaalisu bopum bo Touba amna témirat kon assainissement ni ko dëkk bi jitu dafa ëpp bo xam ngeen dëkk bi wees na corniche bi doy loola képp fi neewon ba ginaaw Sëñ Saliou leneen li fi amaat lépp nag yàlla def na man nii ci sama xalaat la jóge xaw naa ci xam lu bëri ndax lañ fi njëkk def. président Abdoulaye boo ko fi def ma tàmbale woon fii ci buntu kër Sëriñ Tuubaa gi dem ba ca post contrôle daal di continuer jaar kër ña jàll mooy assainissement bi fi njëkkee defaat bu wee bu weesoo li alaj ba def mooy jumaa ji kon lu ci ne xam naa fa mu jaar 2012 bi nga xam ne président Macky Sall ñëw na it ku fàttali ko at moom inondation bu metti moo fi amoon moomuñ ci dëkk bi booba Sëñ Sidi Moxtaar yëkkati un milliard ngir bëgg woo taalibe Sëñ Tuubaa yi ñu defar ko far moom mu jël ci engagement ci la tàmbali assainissement ba njëkk a def ba 2019 2019 at mooma fekk ñaari at yoo ko jëkk yëpp fàttali naa ba taay nee naan màggal gi de bu ñu ko waajalut fekk at yu néew dana dugg ci biir nawet loolu nag mooy la agsi 2019 ci lañ ci defaat liñ li fi ñu toll loolu nag liggéey bi dafa àggagut moo tax mu xaw a metti ci nit ñi ren ndax yàlla def bi mu fi jógee nguur gu bees gii fi ne ku xam nguur waxoon naa leen ni ren sëñ Sadio dafa wax ne nguur gu bu amagut ñeent fu guddi kenn du ko teg soxla ñeent fu guddi yi weesoo léeg-léeg sax nit ñi ne ma dañ leen yërëm bopp wala dañ leen layal man layaluma kenn xalaatuma ko sax sëñuma ko ndax liggéey Sëñ Tuubaa bi suñ bakkan lañ ci teg suñ pësteef lañ ci teg suñ dégg Sëñ Tuubaa luñ ci seeral kenn lu mu defut ndax waaye boo xamee danga xam ne diirum ñeenti weer ku ci yaakaare mën naa tàggoog ndox mi nit mënti nekk ndax liggéey bi àggu ko ña ngi ca liggéey góor nañ nag def cee jéego waaye dafa des beneen jafe-jafe bi ci am nag xëy ne comme ñoom bi ñu door agsi euh, xamaguñu woon liggéey bi ni mu demee ndax daaw ba seeb kër ñan bi dañ faa déggoon pompe boo xam ne six mille mètres cubes la daa yóbbu ndax xam ngeen ndox mi jóge ci dëkk yëpp fa la jaar moo tax ndox mi dawu fa taxaw leen li dem kër kàbbu lay ca des dem puuf di fi ñuy wax ngelaw itam pompe dafa ne woon di yóbbu kër kàbbu yàlla def nag bi nawet bi duggee pompe ba ma ko toll ci deux mille huit cent kon dafa manqué lu bari bi fi ministère bi ñëwee leeral naa ko bi mu ko xamee it bi mu fi jugee wax na ne ñi ngi monté pompe pompe yi dafa noppeegut li fi noppeegut nag ndax taw bi da ko téye woon ba tax mënta jàll laa waral bu ngeen seetloo ren fu mu tawee rek mu metti ndax li ko waral mooy. buñ ubbee bu ñu ubbi bu ñu tëjut bu tëjut machine yi boobaa kër ñang ci boppam ndox ma day sottu ko seen kaw moo tax ñoom itam dañuy bàyyi machine yi muy dem ndànk-ndànk ba këru machine yi ba noppi waaye kon nag comme ñoom dañuy door a toog moo tax nit buy door a toog doo ko mel na ko koy teg personne jox loolu du suñ baax ndax Sëñ dañoo tere dañoo tere jàmbat ku def lu baax ñu sant la waaye ku defut la nga war a def itam murid moom xaaruju kenn ci dara kon nag ñoom ñi nga xam ne seen warteef la te dañuy door toog xam na xam nañ ne ren jàpp na kon liñ ci man rek mooy fexe ba génnee ndox mi ci biir kër yi jàppale ci nit ñi ndoxum naan mi it alhamdulilah rabbil fi ñu toll bu fekkee forage yi paan bari na yéegagum xëy na benn lay wala ñaar ñu def ci yitte ba benn forage bañ a oto ndox yi tam nañ ko defee woon daaw oto sàpp pompier yëpp ñu fexe ba dolli ko bareen jaal te màggal gi jàllee rek ñu fexe ba déwén ñu def ci yitte ba ndox mi bañ a at waaye comme atum ren la loolu moom da ci am loo xam ne nit yi day xam lu yoon maanaam waaye nañ ci gën a dolli yitte ndax nit ku ku ne ci biiru ndox ay bagaasam di yàqu ak dundam di yàqu kooku taxaw ko métti na am na sax ñuy wax naan. nañ jël nit ñi dugal leen ci kër Sëriñ Tuubaa waaye kër Sëriñ Tuubaa dafa bëriwut kër yii kër Sëriñ Tuubaa yi bu ñu fa dugaloon nit sax fi ne mënoo ko génne fii ak màggal ndax màggal gaa ci biir nawet bi ba ca des mooy ñun ñii sax gan ñi ñi am kër Sëriñ Tuubaa day fees ba li ñu luyee ci ay kër dana ma fukki million kon ku amagut néeg yu doy ngir gan xam nga kër yi du luñ mën a ubbi xëy na nit ñi duñ ko xam li ñuy wax wala. dëkk bi dafa am nu muy doxe dëkk bi dëkku kàddu la dëkku baat la li fi indi nit ñi ak taalibe la ak taalibe lañ àndee ak sëñ bi waaye du sañ-sañ lu la neex wax wala noo ko gisee nga wax ko loolu moom nañ xam ne yërmande sëñ bi moo leen may li leen am li ñu am looloo leen ko may bu toll yërmande sëñ bi kat la sëñ li waxoon ku koy bañ kat ci dëkk bi nga koy bañee waaye boo demee Mbàkke gii rek mu teg ci sa kaw kon. la sëñ bi daa wax rek yaar dara dara amu ci solo am loo amut ak am loo xamut xam loo amut ak am loo xamut kon nag ñun li ñuy bëgg dal mooy li yées ci àdduna te mooy ku ñëpp ñette ñëwu sa bopp Touba dëkkub yërmande la Serigne Touba ko ñaanu borom waxe tam ne ku fi sam xel indiwutit saw xel dina la indi kon loolu nit ñi fi dëkk am feex yi dëkk ak sëriñ bi la Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon rek nañ dawloo Sëriñ Tuubaa te xam ne Sëriñ Tuubaa fàggul nañu lépp te te ku ci ne ci dog yi itam na la wóor ne Sëriñ Tuubaa daan la ndax firnde ji kat mu suñoo toog di xaar dara firnde la ci ci dëkk bi bañ fi njëkk def assainissement booba alali boppam la ko defee tubaa képp ngay ngay dugg ci dëkk gis fa ay tëli ñun la ay daayira ko def nga gis fa ay poste de santé ñun la ay daayira ab ko def nga gis fa fo ah, ñun la ab daayira ko def gis nga nga gis fa la ko def kon loolu ñoom xaaruñ kenn xaaruñ ndimbalul kenn lu leen ci waaye di fekkee dañ leen cee fekke ba ci màggal gii leeral gi de baax ndax day dimbali nit ñi ndax man baaxuma sax di weddente wala tontonte du sama jikko gën a du ma ko defit bu dee lu jëm ci sama jëm moom damay bàyyi rek addunay atte ak ak taarix muy atte waaye weddi moom um solo ndax la ci Sëñ Saaliw waxoon rek Sëñ Abdou Lahad Sëñ Saaliw waxoon ne saa suñ la waxalee dara nga weddi ko boo liggéey buñ la waxaatee nga weddi mënoo ci dëkk te boo boo weddee lii bàyyi lii kon yaa la nga weddoo yaa ko saxal sëñ Abdou Lahad daa waxoon ne liñ lay tuumaal moom dee ko weddi ci say jëf waaye ko weddi ci say wax dee ko weddi ci say jëf waaye ko weddi ci say wax ndax nee na mënoo luñ la tuumaal la nga weddi ko walla danañ la tuumaal ba tuumaal la loo xam doo xam ne tuumaal nañ ko waaye nag bu dee loo xam ne nag luy dimbale taalibe yi ngir ñu gën a xam loolu day na ne farata la ndax at yi weesu nit ñi lu ne wax nañ ko maa ngi fàttaliku 2012 màggalu tubaa agsi du ma ko fàtte maa ngi jógee kër si Touba gi di jëm Daaru Manam nit ne nit woo ma ne ma damaa dégg ñu dañ fi indi ambulance bu xaalis da ngay seet wax jooju kenn xamul lu ab xanaa xaalis ku ko def doo ko def ci ba ambulance ambulance la bu nit ñëw jox ko Sëriñ Sidi Moxtaar addiya boo élection yi dafa jub si nit ñi nit ñi yàqee rek xam naa ko ko wax sax waaye du ko tudd wax ko de kooku saare ko ci rajo yi te nit ñi lu ñu gëm ko duñu xool sax lu yenu maanaam lu yenul maanaam lu ne danga ko dégg waaye fii nañ xam ne la Sëñ Tuubaa waxoon la Sëñ Tuubaa waxoon ci diggam ak tubaab yi dafa waxoon ne sama digg tubaab yi kenn doyuma ci moom ci ñoom ndax ku dul man mën nañ la xupp walla ñu xëpp la man nag mënisuma xupp mënisuma xëpp loola nag képp ku fi nekkal Sëñ Tuubaa ku ne nit ñi dañ dul xalaat waaye siñ sëñ Muntaxa wala ña ko jëkk lu leen nit adduna mën a defal lu tax lu leen taalibe sëñ Tuubaa defalut lu leen nit nitu nguur jox ci at balaa ma ñaar fan ab taalibe jox leen ko te duñ ko jëfandikoo sax am naa ci lu ma leer amu ci kenn koo xam ne lañ la jox yaa ngi koy jëfandikoo dañuy suturaal rek màggalu Tuubaa gi liñ ci ñàkk kenn xamul nu mu toll. ñaari nguur yi nga xam ne sama kanam la di moom te xam naa ne jàpp naa ne ñoo tane ñi leen njëkk li ñuy def ci màggal gi buñ ci génnee lañ leen di ganelee du ko du ko mat te nit ñi ko waaye ñun Sëriñ tax ñuy def ku fi ñëw teeraange Sëriñ Tuubaa ji lañ lay jox xamuñ leneen te lii ma dox yomb naa yomb naa yomb naa vérifier ñaa ndax ñi ko doon def ñëpp ngi dund kenn faatuwu ci li ñuy joxe ci màggal gi muy jëm ci ñun ñii moo ëpp li leen di ganeele ko ëpp loolu daa martal leen ndax day gindi nit ñi mu dimbali leen ñoo xam ne màggal gi taalibe suñu tubaab yi ñoo koy def kon nag ñi ngi sant taalibe yëpp bàyyiwuñ kenn di ko tàmbalee ci buñ tuddee njabootu Cheikh Ibra tudd nañ bokk taalibe yëpp tudd nañ Cheikh suñu tubaab yëpp waaye di sant ñi nga xam ne seen taxawaay dafa fiche si màggalu Tuubaa gi tàmbalee ko ci commune Touba Mosquée di Sëriñ Abdou di ko sant ci taxawaayam ci màggat gi ndax kilifa moom boole woon moom waaye lépp lu ko war ci màggat gi ma ngi koy def ñu ngi koy ñaanal yàlla gën koo kattanal ci loolu ba nii ñu ko ànde ñu yàgg ko ànd ci barke Sëriñ Touba di gërëm waa daaira Hisbu Tarxiya tudd nañ leen léegi seen taxawaay xam ngeen ni ñoom leen du mu Mountakha di wax nee na ñooy soldaari yoon wi man leen si Muntaxa di wax du noppalu guddeeg bëccëg seen taxawaay rafet na bu baax ñi ngi waa itam waa daayira muqaddamatu xidma ndax xam ngeen ne jumaa ji sàppe yeeg li ci ajoog xorumi li ko wër lépp ju ngi koy taxaw amul guddi amul bëccëg seen yitte jëpp ñu ngi ko jëmee ci liggéey Sëriñ Tuubaa ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm waa daayira Rawdu Rayaahiin lim nañ mbooleem taxawaay yi nga xam ne ñu ngi ko def ci biir commission bi di gërëm itam waa daayira Touba ci kanam xam ngeen ne bu màggal gi desee weer yi jom itam liñ man lépp ñu ngi koy def ci defaraat yoon yi ak defaraat barab yàqu yi xam naa nag du ñàkk ñoo fàtte xam naa ñu fàttali ma ko di gërëm ñi nga xam ne ñooy journaliste yi nga xam ne ñëw nañ fi ngir jàllale bis bi na xam naa li ci am solo rek mooy lii moom liggéey Sëriñ Tuubaa la ku fi ñëw it kuñ tudd kuñ tuddut amul solo bala maa jeexal nag ma sant al lajnatu tanzimiya mooy kuréel gi saytu màggal gi eh, leen beral seen cant ci njiital sëriñ Ousmane postéefam ak dogoom ak taxawaayam te li li ci ëpp solo mooy li muy def lépp jëm Sëriñ Tuubaa tax bii nga maa ngi koy wax de ma ne ko bu ma ne bu ma bu ma mënee nekk fii am jàmm postéefam ak taxawaay ak dogoom a tax ak mboolem ñu ko seqal nag kuréel gépp nag mboolem ñi jiite commission yi ku ci ne damay bañ di lim di juum waaye bàyyiwuma kenn sëñ eh, Cheikh Abi mu jiite commission santé ak action sociale yaakaar naa bu ma juum damay bañ juum ci ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm Serigne Cheikh Abdoul Mbac Ahad Mbac Guèye Fall mi nga xam ne lii lépp moo ko doon organisé ci mooy itam positif ak taxawaay ak dogam. di gërëm suñu Cheikh Marème mi nga xam moo jiite commission organisation di jiite sëriñ di nuyu sëriñ Abo Mbakke mi nga xam ne moo jiite secrétariat général di lim bi rek moom moo tax ba ci bayu juum daanaka daal boo xa siita du suñu Ousmane rek moom mi nga xam ne moo jiite lépp ñëpp tàbbi na ci biir maa ngi leen beral sama cant ak sama gërëm ci liggéey bii nga xam ne nee ko suñ Basiiru Mbàkke Poroxaan mi waxee ndax dama ko wax léegi na ko yow da ngay da sa jotaay day soññee waaye juróom sëñ Moussa Bassirou sëñ da ko daa seereel ne da ko daa da sëñ de ak taalibeem ak wéet ak ku wéetli ko ñoo ci am ñoom nag dañ leen a tàggat ci loolu ba mënuñ ko wàcce ngir wax ci màggal gi rek moom mi waajuram màggal Tuubaa agsi na jamono naqari déqee gi ñu ay toolam mu watt gerte gi dem jaay ko def ko ci màggal gi kon màgget gi moom mosuñ ci xaar kenn Sëñ Tuubaa da koy defar bu noppi sax màgget gi dafa jag lu jag lu sotti bu noppi la loo xam ne kon lu ci waaye def ñu sant gërëm waaye liy jëmi màgget gi moom positif taalibe yi la taalibe yi koy defar seen kenn xaaru ci kenn waxuma ñun ñi sax waaye kenn ku ci ne sa kër séntuwoo ko ci kenn xaaroo ko ci kenn ndax loo xam ne budget biñ nattalee daaw wax nañ ne cinq million huit cent dugg na ci dëkk bi ak ñi fi ne mooy juróom millions yu bëgg a tege daanaka juróom benn million te day yokk at mu jot kon loolu ñu ñu ma li li fiy dugg ci koom-koom deux cent quarante milliards bu néewee ba néew xam ngeen ne kon ni ma leen wax bu fekkente ne bu ñu waxee ne la fi nguur di dugal mënu leen a gànnale ñoom kon xam ngeen màggal gi taalibe Sëriñ Tuubaa yoo koy def kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di fas yéene eh, ànd koog yéen sëñ Mamoor lim na lépp programme bi yeeg conférence yi def yi ci gën a fes nag mooy ñaar yi nga xam ne benn mooy njabootu sëñ Moor ku ne Mbàkke ndax moom ku ne xam na lim doon ci sëñ bi ak pëstee xam naa ci moom lu bari naxu jox ko xadaa il xaaj moo tax sëriñ bi taalif ko sëñ Aliou Diouf Lambaye ku ne xam na ab juddoom waaye dafa jaay lépp jaay dafa jaay lépp jënd ko taalibe loolu nag bu ngeen gisee ñu di ko def mooy xamle ñi ànd ak Sëñ Tuubaa mooy wane Sëñ Tuubaa te damay damay waxtaan ak ñu bari ñëw bokkal Sëñ Tuubaa ma ne leen képp ku bëgg Sëñ Tuubaa képp ku Sëñ Tuubaa defar na ngeen leen ko yéene ndax ñooy defaru sëñ bi te bu ngeen leen ko yéenewut te mun leen ko nangu da Sëñ Tuubaa ndax dañ ko ñaq liggéey ko Sëñ Tuubaa faye leen ko yéene leen ko nag bokk na ci gëm sëñ Tuubaa waaye ku mu ko yéenewul nag day mel ne gëm sëñ bi des na ndax sëñ Tuubaa kat bu fekkonte ne bu fekkonte ne gënaloon na ko bu fekkonte ne du jikko du jikkoom ji mu am kon ab seex lu am kon ñëpp mën nañu aju ci njabootam mu jeex waaye kon kon du tudd yoon suñu saylu daa wax ne bu ñu wax yoon wi seex see tax kon sëñ Tuubaa ko njabootam dañuy wax kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan màggal gi ñu digg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin tey ñaan nag jëpp bépp yëngatu buñ ci def yàlla na ko Sëñ Tuubaa gërëm lépp lu ci bokkut wala gënalu ci Sëñ Tuubaa yàlla ko Sëñ Tuubaa dindi ba mu sedd wicc ba lépp di pëstéefu kese ndax kat Sëñ Tuubaa sëñ bi laa daana wax du fecc def saako te kenn mënu koo naxit kon yàlla na ñu dimbale ba rëcc rëcc yi ci am ci doomu aadama yàlla dimbali ba ñun ñu muccu ca ba lepp di pësifu kese na bu dé pësifu kese ka da yomb waye nag bu ci àdduna dugare suñ bi genn kon ñi ngi sant ñëpp dugare ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa assalamu alaykum wa kon bala siñ bi ñaan rek ñu jotté daayo mu khadimatul khidma bi nek ci juma ji ñoom ci yëngu ñi wajal magal gi dañuy wax ne dana am conférence bu mag bo xamné ñing koy def ci la 11 safar ñu ci waxtaane yoonu murit téeméeraat ginnaaw sëriñ bi sëñ Fallou Bousso asan moo koy waxtaane exposition bi ñu baaxoo def ci biir jumaa ji it dinañ ko def li dalee quinze safar ba le 19 safar incha allah wasalaamaaleykum